awusu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatulaahi wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent ba Seydina Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam waaye man nekk ñoo leen di ziar di leen ñaanal jàmm ak gudd fan wér ñu ñëwee seen naafila yi fu julli guddeeg fukkeel ba ak benn ñeenti rakka rakka bu ne faatiha benn yoon inna anzalnaahu fi laylatul qadri juróom-ñaari yoon qul yaa ayyuhal kaafiruuna juróom-ñaari yoon kulóola ahad juróom-ñaari yoon bu sëlmalee mu wax laa xawla wala qawata illa billahi alil asimi juróom-ñaar fukki yoon waxaat allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa juróom-ñaar fukki yoon yàlla dana ko baal ay bakkaaram yu jëkk ak yu mujj dana ko bindal ci ay ci aaya bu nekk jaamu yàlla ak xat dana am bépp yool kem kuréelu junniy jàmm yu gëm yàlla te ànd ak yool ba ku saraxe junniy diinaar ak yoolub ku jox lekk junniy nit yu xiif wadd junniy yu rafle mbooleem lu nekk ci kaw suuf lu tooy ak lu wow ma nga koy sàbbal ak di ko jéggalu fa sunu boroom yàlla dana ko musal ci balaa yi ak mbasi ak xeeti te xeet yi ak lu demee ni ki sàddum jinne dana woyfal sukuraatam dugal ko àjjana te kenn du ko xisaab loolu nag mooy naafila ak euh, mm, guddeel fukk ak benn daa am solo la kon wasalaamaaleykum wa rahmatulah